waaye yow da nga yabaate da nga yabaate yaa ngi ba suba di nga xam ne lépp dëgg la yow nga nekk fi wax la neex def la fi bëgg ma ñëw sax ay émission yow da nga yabaate quoi barke borom Tuuba saa yi nag yow barke yàlla nag da nga compliqué quoi xoolal man dama doon foo foo naa ba sénégalais yëpp ne ma yaa tooñ teg naa émission samedi ñëwal ñu waxtaan coow li jeex. man nekkuma di xuloo wala may am ak yow problème man dama waroon kaf rek foo naa ba nga mer nee naa la baal ma sa waay baal ma émission bii dama ko def pour nga ñëw ñu waxtaan pour sénégalais yi xam ne problème amul bu si nag ay wax day jeex nag ko ah. no mais li nga wax yëpp du nii la ñuy baaloo li nga wax yëpp dafa bari barke alxuraanu karim li nga wax yëpp dafa bari dafa bari aba dafa bari xam nga dafa bari man màggal gee taxoon taluma la aw ma sa jot war na Sëriñ Tuubaa mais yi nga def dafa bari. baal ma nii rek ma baal la noonu dafa yomb trop ay émission man sa émission ñëwuma ci sëkkuma yow ay émission sëkkuma ko yow man naa toog yow émission ay yow yow doo nit nag de non yow doo nit de non bougé yow doo nit de yow doo nit te ku ma bett nga mais nag lii àdduna yëpp nañ ko xam lii àdduna yëpp nañ xam ni dama doon foog yow nga mer benn ñaar dama la invité plateau nga bañ lii àdduna yëpp nañ ko xam yow doo nit sax quoi to àdduna bi lii lan moo ko fi jar lan